ndax ay mbindeef lañ yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala moo leen bind te it leen lim jox ab yonent ñi koy tuddee isma nga xam ne du juum mukk loolu joxu leen ko kon danañ juum ci seen wàllu jëfiin danañ juum ci seen waxiin kon juum te mën naa am ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi waaye lañ woote woon ak nit ñi mooy suñ juumee ba xam ne dañoo juum fi saase dañuy daal di delluwaat ci dëkk dañ leen a yar yar bu mel noonu kon ànd ak loolu teewul njuumte loolu abu daawud ngir mu suturaal leen mu bañ a tudd turu ñooñu kon loolu mbir mu mag la mbir mu mat a jële bind la ci nun suñ diggante ak saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa buñ xoolee yii xew ci jamono ñi nga xam ne dañuy jël saxaaba yonente bi alayhi salaatu wasalaam di leen dugal sax ci ay film xoolal nañ lay delloo si waatale seen kéefër wax ju ñaaw jaag sàngara saak ngay jaar ci turu saxaab yi boo xam ne saxaabu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di la génneel ak ceddoom ak ormal saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te kat li lay gën a feddalil ne àndut ak ormal saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xoolal ñi nga xam ne ci sunuy dënn dën leen a ormal tey seetlul sëriñ bu mag bu la neex ci sëriñ ci ci réew mi ndax kenn kuy def film wala ngay théâtre soo fit àgg na ci nga jël genn kilifa diine ca ñañ naw fonk leen di théâtre seen melokaan yee nga xam ne bokk ak yamat seenu ndaw walla seeni caaxaan wala seeni dëng-dëng nga jël ko def ko théâtre ni kii mooy diw ndax loolu fit yi àgg na fa léegi àggu fa kon war nañoo delloosiwaat suñu xel ci ormaalu saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne am nga ay jëmm yu nekk ci sa xol yoo xam ne duñ ay saxaaba ba noppi boo leen comparé ak saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa ñu gën a rëy fi yow fa sa xol baamtuwaatal seetluwaat sa ngëm yàlla bu baax ba xam bu fekkee sa ngëm yàlla wér na jéemal a gëstu ci wàllu xam-xam ba xam sahaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooy ñan bul fàtte ne diine ji ci boppam tuxal ko ci ñoom la jaare woon kilifa ga ngay naw wala borom xam-xam ba ngay naw bul fàtte ne lam xam ci diine ko néew ci ñooñu la jaare jamono yoo xamee ne ñooñu doyadi na doyadal nga leen rek xamal ne yaa ngi doyadal ñooñu lañ yor ci wàllu xam-xam moo tax abu zura razi bu leen fàtte waxam ja bi nga xamee ne indi nañ ñi ñuy tudde rafida muy chia yi ñu dal ci kaw euh, saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa alihi di wax ci ñoom ba ne sax am na ci ñoo xam ne dañoo weddi yàlla gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa dugg ci kéefar wala yaatu billah daf ne ñii ñii bañu ñu saxaaba yi waaye liñ bañ mooy lislaam liñ ci jublu mooy lan mooy xam nañ ne lislaam mii li nu ci jotale mooy ñii su fekkee dem nañ ba ñooñu li ci jotale nag doonuñu ñu wér ñoom ci seen jëmmi bopp loolu li muy tekki mooy lislaam ci boppam wérut kon ñu seen place ci lislaam dara ji ju kawe la yoo xam ne ku leen doyadal lislaam ci boppam nga doyadal kon ñoo ñu ñu a bàyyi xel lañ kon euh, alal aqal maanaam lu néew néew au minimum ñu respecté leen comme ni ñu respecté noonu suñ kilifa yi nga xam ne dañ leen a rafet ci ñoom njort jàppe leen kilifa yu baax gën ngaa ñëw xanaa nga àgg ak ñoom foofu ñeenteel ba biir xadis yi gis nañ ci li ñu tudde alam min alaami nubuwa xaytu bashara النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء بالجنة وبشر غيرهم لكن هؤلاء هم الذين ذكروا في حديث واحد فاشتهروا danañ gis ne li ñuy tuddee alamu nubuwa mooy loo xam ne suñ borom tabaraka wa moo koy jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jékki-jékki xamal ko loo xam ne képp ku wax yu dul dikkal mënoo koo xam jékki-jékki xamal ko loo xam ne képp ku wax dul dikkal mënoo koo xam kon fukk yooyu nga xam ne dafa jékki-jékki moom yonent bi alayhi salaat wasalaam bég leen bégal leen ne diwa nga àjjana diw day dem àjjana diw day dem àjjana kon loolu doon na loo xam ne boroomam tabaraka wa taala moo ko ko xamal buñ seetloo nag danañ gis ne danañ gis ne bégal na ñeneen ñu bari ci àjjana ñu bari ci saxaaba yi ñu bokkul ak fukk yooyu am na ay yiw yuñ def yonent bi alayhi salaatu wasalaam bégal leen ci àjjana ku mel ni bilal radiallahu taala anhu yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na ko dégg naa sa yëngatub dàll yi ca àjjana ak yeneen yu bare bare bare ci ay saxaaba yoo xam ne bégal na leen ci àjjana kon lu tax ñu ne rek fukk yi nga xam ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam da leen a bégal yarhamukallah li tax fukk yooyu ñu siiw moo di dajale gi mu leen dajale ci benn xadis benn xadis boo xam ne dafa toog benn jataay jékki-jékki ni diwa nga àjjana diwa nga àjjana diwa nga àjjana diwa nga àjjana loolu moo tax mu siiwee ñu naan leen al asharatu al mubasharuna bil janna muy fukk yi nga xam ne ñoom lañ bégal ci àjjana waaye su dut loolu am na ñeneen ñu baree baree bari ñoo xam ne ñuy bégal ci àjjana foofoot danañ fi leneen ci dunduk saxaaba yi waaw ku toog ba mu yàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy yonent bi yàlla wàcce ci moom mu jàkkaarloog diw sàngam ne ko àjjana nga jëm xoola ñooñu ñi wax leen wax jooju ba àggal ak liñ jàppe woon ci diine booleel ñaar yooyu kooku dana la jox benn daraje ci seeni maqaama yi nga xam ne am nañ ko ci yàlla ndax ñu barikat buñ xasoon xam loolu seen càggante dana daal tàmbalee feeñ yonent bi jàkkaarloog yow ci wax yu mu jógee ci boroomam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa lu mu wax borom bi tabaraka wa taala moo ko wàcce ci moom mu jàkkaarloog yow diw sàngam ne la yow day àjjana nga jëm ah kooku day ñu bare bare bari suñ amoon boobu daraja danañ daal di tàmbali feeñal xeeti càggante ndax danañ xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu wax dëgg la waaye nag la ñu yeyoo loola ba tax ñu yoyoo yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax leen loola moo di ne loolu du soppi seen melokaan suñ doonoon ñoo xam ne loolu day soppi seen melokaan même su xamee loolu yi du leen ko wax waaye xam na ne su leen ko waxee it loolu du soppi seen doxiin loolu moo tax ñu mën koo am kon jumbul ne am na ñu bari ñoo xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam doon na xam ne ña nga àjjana àjjana lañ jëm waaye amaana du leen ko wax ndax àgguñu ci marta bopp mën koo dégg ba àggal continue jaar ci sirat al mustaqim kon foofu lu am solo ngi fi danan jariñoo it ci xadis bi juróomeel bi mooy fiqhu salaf saalix xaytu fahimu min hadihi albishara عدم جواز ذكر أحد منهم بسوء فو السلف الصالح من يجارتي يون السنة ñu am fiq lañ maanaam ñu amuk dégg lañ ndax kat bégal googu leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégal ci ne waa àjjana lañ dal nañ ci déggee ne kon ñooñu kenn waru leen a wax lu ñaaw yonent bi seedeel ne àjjana la jëm kooku kenn waratu ko wax lu ñaaw ndax wax gi lu ñaaw mooy lan mooy dafa mel ne danga bëgg a wax ni kii li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seede woon yeyowu ko dafa mel ni yonent bi daf ne baax na nga ne bon na loolu lay nuru loolu moo tax kon ñoom seenu dégg agoon na ci xóot xóotaay boo xam ne su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xasee wax ci nit wax seede ju mel noonu kooku képp koo xam ne dégg nañ ci yow nga wax ci moom benn wax bu ñaaw dañuy dal seko kon nag ma ne naka rafida ñi ñuy tudd chia yi nga xam ne dañuy fekk Aboubacar ak Omar nga xam ne ñoo nekk ci boppu ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bégal ci àjjana ñu tudde leen sanamay Quraysh ñu di leen wax ñaari xërami Quraysh yi te li ñuy wax waxuñu ko ci bànneex waaye ci seen téere la nekk ñoo koy bind di ko wax di ko waxante ci seen bopp di leen móolu itam bu ñu leen tuddee wax ci ñoom wax ju ñaawa ñaawa ñaawa li ci gën a jege mooy téere bi ñuy wax kashful asrar seen bu yàggul rek seen seen seen njiit li ni moo ko bind wax ju ñaaw nga ci joo xam ne moolu Omar ibnul Xataab ci wax ju leer nañ ñu joo xam ne amul lënt lëntal amul dara ma nga ci kon ñooñu war nañoo seetluwaat seen pas-pas war nañoo seetluwaat seen taxawaay ci lislaam war nañoo dellusiwaat xool alquranul karim xool sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp naa ne ñooñu ñaari xaaj lañ am na ci ñoo xam ne la Abdoulaye ibnu Saba nekkoon muy ndëngte goo xam ne àgg ci ñàkk a doon ab jullit ba noppi jóg di yàq lislaam ñooña am na ñu mel noona ci ñoom waaye ci jamono ji bariwul ñu bari ñu leen di topp fañ leen lëndamale mbir yi mooy dox seen diggante ak jàng sunna dox seen diggante ak jàng sunna fexe ba wutal leen loo xam ne ñaari école lañ koy tuddee naan la école bi mooy école sunna école bi mooy école xawma ahlul bayt lañ koy tuddee ne la boo xasee jël bii di ko jàng rek mën ngaa continuer di ko jàng su ko defee la ngay jàng mooy la lay réeral yow ndaxte doo jàng sunna yonent bi salallahu alayhi wa sallam doo ko xam doo xam dara yi saxaaba yi doo xam seen maqaama su ko defee lu nekk mën nga leen ko wax ci àdduna kon mbokk yooyu su fekkoon ne bëgg nañoo dellu si ci siraatul mustaqim dañuy dellu si ci jàng sunna ahlu sunna day moom seeni borom xam-xam ak seeni gëstukat dañuy jàng sunna ba xam ko alhamdulilah ba xam te la leen ci seen borom tabaraka wa taala cérale xool itam téere yi ñi nga xam ne ñooy chia yi ba xam la leen réeral ngir ñu mën a waaru ngir itam ñi gën a mën ba dëgër ci sunna jàpp ma ne nag am na benn koo xam ne ci chia nga nekk wala ci meneen ngir mu mën doon moo xam ne ci ay neen lañu nekk lu dul bu jàngee am ngërëm ci ak sellal ak seet dëgg jóge ci dikk jàng sunna xool xadis yi yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xool alquranul karim ak su fekkee ànd naa ko sellal ak seet dëgg te jëfandawut ci leneen lu dul suñu borom tabaraka wa taala dana ko gindi mu gis na lim nekkoon du dara loolu mooy li am danañ jëriñoo ci xadis yi romb ba tey tawaaduu saïd ibnu zayd fi talakkuihi qabla dicri nafsihi fi riwayat alxadis toroxlu gi nga xam ne saxaaba yi ridwanullahi taala alayhim yonente bi salallahu alai sallam daf leen ci yaroon daf leen ci yaroon xoola saïd ibnu zayd bokk na ci ñi yonente bi salallahu alayhi wa sallam bégal ci àjjana waaye bi muy nettali xadis bi xoolal bi muy bëgg a tudd boppam ni mu ci sonne ni mu ci sonne ay yoon yoon dañ koy laaj ki leen fukkeel kan la mu ne su ma neexoon wax ko ki leen fukkeel kan la mu ne cell lu yàgg ba mu yàgg mu door ne leen Saïd ibnu Zayd moo leen fukkeel kon loolu ak toroxlu la goo xam ne war nañ cee war nañ koo jàng war nañ cee yar suñu bopp itam bu baax a baax ndax lu bare bari ci nit ñi kat su leen yàlla cëralee ab cër euh, ak ci lu mën a doon suñ sañoon fuñ jaar fu nekk danañ ko feeñal ñu xam ne ñoom kii mooy diw kii moom mooy ki mën nangam wala mooy ci xam nangam wala mooy ci defoon nangam su ko defee loolu day daal di dàqoonte ak toroxlu te toroxlu bokk na ci jikko yi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala daf koo bëgg kon loolu moo doon melokaani saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la leen ci la leen doon yar du ngeen fàtte ne du ngeen fàtte ne moom yonent bi alayhi salaam li doonoon Euh, doxalinam ak nit ñi moo di bu masaan toog sax ci seen biir rek lay toog doon ci kenn lu dul nag bañ demee ba jëmmi jamono ba nga xam ne mbooloo mi mujj na bari ba nit ñi aajowoo bu toogee di leen waxtaanal sax ñu di ko gis comme ni ngeen dégg xadis bi ci saxiixu muslim nee na ñu door koo defaral ab toogu boo xam ne bu ca toogee ña ko yi itam danañ ko mën di seen mu door nangoo toog ca toogu boobu waaye su dul loolu dañ daan ñëw ba ak si fekk mbooloo mi toog ku ko xamul day ñëw ne ayikum muhammad kan ci yéen mooy muhammad ñi door na ko ma nga ne mu door a xam ne mooy kooku kon noonu la leen yare woon ba torox la ci boppam dafa am fuñ ko tegoon ba tey danañ ci jëriñu fiqhu saïd ibn zayd xaytu alima أن مشهد هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير من عمل من لم يشهد معه المشاهد مهما عمل من خير ومهما طال عمره دانا نتي جارينو سعيد بن زيد الدقم من صحابي بما قبوبه كو دق دين لكو ام فقلا دخ دون بجيم دون بجي الصحابة يمجي اندونك يونان صلى الله عليه وآله وسلم أك ànd gi ñu daan ànd ak moom di jihaad fi sabilillahi mu déggee ci ne ñooñu seen melokaan woowu mu doon gis moom tax na mu xamee ci ne ñii ñëw seen gannaaw ak luñ baax baax baax mënuñoo am yoolu ñële maanaam sa jëf lu mu baax baax ak lu sa yool bari bari bari bari sow fan lu mu gudd gudd gudd du tax xëyum kenn ci ñoom fi sabilillah nga mën a am lu tolloo lu tax nga mën a am nga mën a am lu toll noonu am na beneen xadis nag boo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ci soññee di wax ni ñi nga xam ne dañuy góorgóorlu jàpp ci sunnaam jàpp ci diineem di sonn ay mbir di dal ci seen i kaw ñi di ko muñ fi sabilillah ñooñu yowmal xiyam dana ñëw yàlla defal leen ci yool loo xam ne yoolu dana mat juróom fukk juróom fukki nit sahaba yi laaj ko juróom fukki nit ci nun wala ci ñoom mu ne ko ci yéen ci yéen kon ñooñu ci wàllu yool borom bi tabaraka wa taala yéegal na leen bañ am yool bu baree baree baree bare waaye nag ci wàllu maqaama ak ci jëf taxul ñu jot saxaaba yonente bi salallahu alayhi wa sallam ba tey danañ gis ci xadis bi beneen alam min alaami nubuwa حيث أعلمه ربه بشهادة عمر وعثمان وهما على أحد دانا جسنا لنين لن يتد عالم من أعلام النبوة وخرنا لنا موي لو خمنا يننتبه صلى الله عليه وآله وسلم يلا كوكوي خمل كوحيد الواتشي ومنو كو خم مودي نم خميني عثمان أك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما dañuy saay fi sabilillah dañuy dañuy shahid fi sabilillah bañ toogee ci kaw doj wa daf ne ko yow ab yonent nekk ci sa kaw ak ku ñu wax siddiq ak ñaari shahid te booba ñi ngi dund ñu dem ba jëmmi jamono kenn ku ci nekk ñu rey la fi sabilillah omar ibn alxataab ci biiru julli lañ ko jame rey ko ousmane ibn affan itam ay xawaarij yu génn dal ci kaw ngor kërëm ñoo ko def lañ ko def kenn ku ci nekk ci wàllu histoire xam ngeen kenn ku ne la ko génne àdduna mu dëppoo képp ak li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ba tey itam li ci mujj moo di fiihi shahaada li abi bakrin bi annahu siddiq ولم تتوفر هذه الشهادة لغيره رضي الله تعالى عنه. يعني أنت عليه الصلاة والسلام moo seedeelal boppam abou bakar na siddiq la siddiq martaba bu kawe la boo xam ne ci wàllu kawe ñoog suhadaaw yi ak saalixuun yi niñ toftaloo mooy ñi nga xam ne suñ borom tabaraka wa taala xéewalal na leen noonu la leen tudde anam allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa saalihin maanaam bu na yonent yi jàllee صديقون ينوى تتبو تكاوي في درجة لا تتبو موي نيساي في سبيل الله شهداوي لا تتبو موي مولم صالحون إذا خانا دنيو جار في صراط المستقيم كون صديق موي مرتبة ان خانا موسوس تي مرتبة بيوننس كون مرتبة بكاوي لا يونن تبي صلى الله عليه وسلم سيدل أبو بكر الصديق بتخبره ووي بنيبلي كو صديق وينك سيدل كو كنن جسني كبن رواية حديث بوخنا يرنتمي صلى الله عليه وسلم ردنا كنين صديق كدل أبو بكر الصديق تيب دون لوخنا تقوح بين نيون وعي أي روايات يو باري باري باري لا يعني في حديث بيلا في أحد ولا كم نيجن كو جيسي تي رواية بجلس تي حراء وعي أمن بين رواية بوخنا وخناك عايشة نكو يبنة الصديق يو دومي صديق بيه maanaam di wax ak moom muy xadis boo ne moom bu wér la kon daal Abu Bakrin moom mooy kenn ci xeet wi koo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam seedeel na ko ne siddiq la mu doon loo xam ne bokk na ci parce que jullit yi ñu gëmaale loolu kon ñi nga xam ne dañuy ŋàññi kooku wala ñuy wax ci moom lenn ñooñu amul benn sikk sàkk amul lu nuy nattable ci ne ñu réer lislaam lañ ñu war a delluwaat ci jiima xam lu lislaam war a jiima jaar ci siraatul mustaqim defe naa ne loolu mooy loo xam ne wares na ko mën a wax ci xadis yi ñu tiim bala ñoo dugg ci tontu lenn ci laaj yi danañ romb ci benn laaj boo xam ne am mbokk daf ko koy laaj ci jotaay bii nu weesu mu doon boo xam ne bu bu ñor la moom itam ndax dafa bokk ci lënt yi nga xam ne euh, rafida muy chia yi dañ koy sànni ci boppi ndaw ñi nga xam ne dañoo jóg di gëstu ci sunna ngir di tuumaal saxaaba yi di wane ne dañoo wàññi diine ji wala dafa am luñ nëbbu wala dafa am yenn pexe yuñ def mu di dañoo wax ne borom laaj bi dafa wax ne chia yi dañu ne wuyeey ahlu sunna dañoo xadaf bi maanaam dañoo dindi xadis yi nga xam ne fatima bint rasulillahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam daf ko solo ñu ne ahlu sunna dañoo rotal hadith yi fatuma mi nga xam ne mooy doomu yonente bi salallahu alayhi wa sallam hadith yi mu solo woon dañ koo dindi ba amut ci téere sunna ñu wax ne amut ci téere sunna ñu wan leen ne loolu wax la joo xam ne lu wax ñu am waxi neen la li wér mooy hadith yi fatuma mi ngi sax ci buxaari muslim hadith yi fatuma mi ngi ci buxaari ak muslim ci musnadu baqi ibnu maxlat ak musnadu imam ahmad nga xam ne baqi ibnu maxlat def na benn muqaddima mu benn introduction boo xam ne def na tudd saxaabi yi bu nekk lam am ci xadis limal na faatuma fukki xadis ak juróom-ñett te xadis yooyu bi ñu ko génnee yëpp mu ngi ci mi ngi ci biir téere sunna yi kon mënuñoo wax ne ahlu sunna dañoo rotal xadis yi kaw bu fekkee jëfandikoo nañ balance bi ahlul xadis di jëfandikoo ci ne nit ki bari na xadis ak bariwul xadis dañuy daal gis ne sax ku bari xadis la ndax warut woon a am ci yoon xadis yu toll noonu dafa am benn règle boo xam ne képp ku jóg di gëstu ci xam-xamu sunna wala xadis war nga koo xam moo di ne qillatu taxdis laysa dalilan ala qillati alxadis néew ay xadis yu ñu riwaaya ci yow tekkiwul ne da ngaa néewle xadis yu dégg ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam saxaaba yépp a déggee ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam xadis yu bari waaye ndax kenn ku ne la nga dégg ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xadise nga ko yoon ngay taalibu yu la wër yoo xam ne aajo woon nañ la ñëw jàng ci yow ba nga jox leen xadis yooyu ngir ñu mën koo riwaaye mu tasaaroo ndax loolu am na loolu amul yu bëree bëri am nay mbir yoo xam ne dana tax nit ki ay xadisam bañ a bëri yëpp say xadis bëri dafa aajo woo nga dund gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund bu yàgg yonent bi dafa nekk nit ñi ñëw di dajale ak yow di jàng jullit yëpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ daan def mboolem ñuy gëstu ci wàllu histoire dëpp nañ ci ne Fatima radiallahu taala anha ay weer yu néew la dund gannaaw baayam sallallahu alayhi weer yooyu ci aw naqarañ jàppale ak faatu ngir mel nit lu faatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko jeexal kon kooku ubbiwul li ñu tudde majlis ab jataayu xam-xam boo xam ne mbooloo mi dañuy ñëw di jàng si ci ñun kon dañuy wax ne pour que xadis yi juróom-ñett yim am sax ahlu sunna dañoo sonn ci gëstu waaye waroon naa mën a am rek bañ a am xadis yu ko xam ñaareel ba xadis yi tamit ngir nga bari ne li ñu jëlee ci yow ci service dafa laaj nga def li ñuy tuddee xasus maanaam nekk spécialiste ci wàllu jot li xadis saxaaba yi daf ci am ñu bari ñoo xam ne dund nañ sax gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa waaye bari wuñ lu tax ñoom jàngoo ñu loolu ginnaaw gis nañ ci seen moroomi saxaaba yi ñoo xam ne jagoo nañ loolu te wér na ne danañ jot li li leen tax a jóg danañ jot li lépp diine ji dara du manqué te am na yeneen bunt yoo xam ne ñoom it mën nañ faa liggéey ñu dem liggéey ci bunt yooyu bàyyee leen ak yi xoolal ku mel ne Xaalid ibnul Walid ah ñaar fukkeelu at ak benn ci gàddaay bi ci la faatu kon kooku dund na gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ab diir bu yàgg ñaata xadis la am fukk ak juróom-ñett mook Fatima ñoo tolloo فاطمه مي دوندو غناو يونت بي صلى الله عليه وسلم اي وير نيو مو خالد بن الوليد ميغا خاني دوند نا لا جيغي فوكي ات صلى الله عليه وسلم ها دون نا لو مات فوكي ات غناو يونت صلى الله عليه وسلم فوكي حديث جيروم نيت رك ليس سولو جيلي كو موم كون غا خامني نيو حديث دو تخ دو تخ ني نه كون اهل سنه دنج كو نوب لو تخ واخو نيو كو سي خالد بن الوليد مودي كون لنج جوبلو دغ دغ دغ du loolu jubluwuñ loolu waaye liñ jublu mooy fexe ba manqueel saxaaba yi ak ñi nga xam ne ñooy taabiroon yi ak mboolem ahlu sunna ba luñ defe ne suñ ko tasaaree ci bëti nit ñi nii rek dana daal di mën a jaxasi seeni xel su ko defee nga sikki sàkk ci sunna wala nga sikki sàkk ci sa ci sa diine xoole abu ubayda al amir ibn al jarrah kenn ki nga xam ne moom lañ doon tudd léegi ci al mubasharuna bil janna bokk na ci ñiñ bigal ci àjjana ñaata xadis la am fukk ak ñeent waaw fukk fukk xadis ak ñeent la am zeynab bintu jaxsh kooku soxna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la woon ah nit ki soxna am kenn gënu ko koo jege ñaata xadis la am fukk rek seneen soxnaam si ñuy wax safiya bintu xuyay umul muminin la moom it ñaata xadis la am moom itam zeynab fukki xadis ak benn la am safiya fukki xadis la am zeynab bint jaxs fukki xadis la am ak benn safiya fukki xadis la am kenn ku ne xam na ne ñooñu dégg nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xadis lu dul jeex waaye tooguñu jotaay yi di jàngale loolu moo ko waral juwayriya moom it umul muminin la ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk juróom-ñaari xadis la am ci mboolem téere xadis yi juróom-ñaari xadis nga ciy gis zeyd ibnu xaarisa kooku ku ko gën a jege yonente bi sallallahu alayhi wa sallam hmm? ñaata xadis la am ñeenti xadis ci mboolem kutubul xadis ummu haani bintu abi talib nga xam ne moo doon jigéenu ali ibn abi talib ku jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaata xadis la benn benn xadis la jëlee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci gàttal ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne benn xadis képp lañ riwaaye jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 458 ne cinquante huit téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett ñoo xam ne kenn ku ci ne benn xadis nga am kon kooku mbooloo mu dut jeex la moo xam ne seen xadis néew na waaye ndax wuñ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadis oho kay ah lu tax chia nag ñu ne kon ahlu sunna dañoo rootal xadis yi ñooñ ñëpp xam nañ ne loolu du leen jëriñ dara ndax ñoo ñu ñooñu doonuñu ñoo xam ne bëgg nañ leen a ŋaaññi liñ soxla mooy ñoo xam ne ci biir kër Ali ibn Abi Talib lañ bokk ndax suñ ne dañoo bañoon Ali bañ ak njabootam bañ alu bayt su ko defee loolu gaaw a jeexital ci jullit ñi ndax alu bayt jullit leen war a bëgg kon suñ la bëggee woon ne dafa am ñu leen bañ kon loolu dafa gën a gaaw a jeexital ngir nga bañ leen loolu moo tax yu mel noonu suñ koy wax ci Fatima lañ koy wax ak waa kër Ali ibn Abi pour bëgg bëgg jaxase xeli jullit yi waaye loolu jaxasewu ko ahlu sunna seen liggéey gën naa xóot loolu weesu na foofu wallahu taala alam bismillah xadis bi wér foofu moom bi sallallahu alayhi wa wax ne man salla alayya marra sallallahu alayhi biha ashra ku julli ci man benn yoon yàlla dana julli ci yow ah fukki yoon waaye la continuer di wax naan ku julli ci moom fukk yàlla julli ci moom téeméer ku julli ci moom téeméer yàlla julli ci moom ah, di ko lim di wéy loolu dollikuwut ci xadis bu wér wérut lépp loo gis mu tegu ci loolu rek xamal ne du wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax balaaxa yonente bi ak xóotaayu waxam ak jubiinam weesu na foofu ginnaaw nee nag ku julli ci moom benn yoon yàlla julli ci yow fukk kooku doy na jaratul mu lay wax ne ku julli fukk am nga téeméer ku julli téeméer am nga junni lim bu bari boobu euh, tekkiwul dara ndax ginnaaw boo amee benn am nga fukk kenn ku ne ku xellu ku ne xam ne boo amee fukk am nga téeméer ah ku xellu ku ne xam nga ne boo amee téeméer am nga junni kon loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam du waxe noonu xadis boobu itam xadis bu bu wérut la eh, rawatina ndollent yu bari yooyu ñi ci dolli eh, donte léeg-léeg nga dégg ci ñiy wax ci rajo yeeg ñi bind ñu di ci wax di ko tudd eh, waaye taxul mu doon xadis bu wér li ci wér mooy li yem ci ku julli ci man benn yoon yàlla dana julli ci yow fukki yoon wallahu alam mhm. salaam woor ci weeru shaabaan lan moo ci wér yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sax na ne weer wi ëppoon lu muy woor gannaaw ramadaan mooy weeru shaabaan weer bi ëppoon lu muy woor gannaaw ramadan moo di weeru chaban waaye nag ndax dañuy dàkk nisfu chaban woor ko wala dañuy woor fukki fan yaag juróom allahu taala alam li gën a wér daal mooy li sax nga xam ne amuñu ci li ñuy nattable moo di weer wu tedd la wu bari lu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon woor kon ku ci mën a bari lu woor na nga ci woor sa kem kàttan loo man te bañ woor nag bis ba ca mujj bis ba ca mujj ndax sax na yonente bi sallallahu alayhi ko daan tere ndax mën naa nekk li ñu tudde yow mu chàkk bis bi ñuy mujj ci koor mujj ci Shaaban nga di ko woor ngir bëgg ne su fekkee ci Ramadan la baax na